aywa Marcel tey euh, euh, dafa mel ni ci benn euh, mbir nga taxawaat boobu mooy ban. Mm-hmm. mbir bi mooy li xew ca ca poste donc crise bañ fa nemeeku crise bu bu taratar loolu waral sax tey jeudi 5 mai 2022 benn daje. ñu koy waajal restitution la nag moom mooy objet daje boobu projet portant mm. sur la mise en place d'un système de comptabilité analytique à la société Euh, nationale La Poste donc euh, ki koy nar euh, jiite mooy directeur général ARTP bi di Abdoul Ly ñu gis na ne objectif final bi mooy lan mooy sauver La post bi nga xamante ne maa ngi koy wax sànq englué fu mu nekk jamono ji dans une crise structurelle bu bu doy waar et selon le chef de l'État Macky Sall dem la ko la ko xëtu yenekaay daal di daal di fësal benn plan de restructuration de la poste ñu ngi koy ñu ngi koy waaj c'est en cours d'ailleurs et celui-ci comporte ñaari volets sont des étapes inévitables pour au moins euh, sauver l'essentiel benn bi mooy recapitalisation bi nga xamante ni en premier lieu elle est obligatoire selon le chef de l'État la seconde étape mm. euh, c'est la création d'une nouvelle société qui pourrait ainsi naître des cendres de l'entreprise nationale La Poste Sokhna Fati il y a des chiffres qui en disent long des chiffres qui en disent long euh, accablants ñi nga xamante ne jiitu réew bi moom moo ko daal di mm. ñi nga xamante ñoom ñooy la République mardi euh, donc euh, nee na il y a des choses qui ne sont pas possibles état bi euh, mënatul continuer di fay weer bu ay salaire pour des gens qui ne travaillent pas nit ci liggéeyuñu kàddu jiitu réew mi la mu ne nous avons fait tellement d'efforts mu am benn reliquat sax bu toll ci 12,5 milliards de francs CFA bi nga xamante ne mu jàpp li xew ca poste c'est une perfusion continue moom tamit bu ñu sukkandikoo ci moom ba en 2021 un montant de milliards de francs ko euh, bi bi société bi di la poste pour sauver euh, pour de la de la banqueroute société nationale bi euh, fu mu nekk yi nag dafa ni kenn mënatul solde compte yi elle qui selon Macky Sall doit 189 milliards de francs CFA à l'état du Sénégal bu ñu gëstoo tamit gis na ne lu jëm ci wàllu nombre d'employés effectifs yi c'est pléthorique ndaxte pas moins de 5000 employés ñoom ñooy composé bi les sociétés alors qu'en 2012 on en était à 2000 soit mu di benn augmentation boo xamante ni employés en 10 ans plus de 300 employés même ont été recrutés euh, depuis euh, le début de l'année 2022 bu ñu sukkandikoo ci Ibrahima Sarr bokk ci euh, la Poste et puis sans oublier gestion clientéliste certains DG yi nga xamante ne dañ daal di succédé wu ca boppu Poste soxna Fatou. ñu fàttalikoo ministre des finances àddu woon na ci mbiru Poste. bi di Abdoulaye Daouda Diallo donc c' était le 11 avril ci mm-hmm. wàllu vote du projet de loi numéro 41 2021 modifiant donc. la loi numéro 65-61 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l'administration euh, modifié mu daal di euh, rek euh, def un aveu sidérant la situation la poste chaque mois l'État est obligé de soutenir la poste pour fay li nga xamante ne moom mooy salaire yi ñu gis na ne la masse salariale même elle est supérieure carrément au chiffre d'affaires soxna Fatick. aywa fan yu mujj yi kër gu bëri scandale gu bëri coow la. exactement kër gu bëri coow la dont la la dernière en bi nga xamante ni day. laal lu jëm ci wàllu euh, poste euh, finance euh, bi nga xamante ni dafa daal di am benn rebondissement bu bees bu ñu sukkandikoo ci euh, suñu naataango bu l'observateur ci euh, seen parution bu démb mercredi 4 mai 2022 euh, ñu ne daal après ginnaaw ay perquisition yi nga xamante ne juge deuxième cabinet bi moom ko ordonné une centaine de nouveaux chèques prêts d'un montant de 30 à millions de francs CFA et 150 millions de francs CFA en liquidité dañ ko daal di fekk ci bureau ay agents yi nga xamante ne dañ leen daal di écroué mu di postier yi di Alexandre Xavier Manga chef agence principale bu Dakar bi Dakar ak tamit ki nga xamante ni moom mooy Kéba Diédhiou caissier dans ce centre ñoom ñëpp ñu ngi leen di euh, téye fu mu nekk nii ci prison bu Rebeuss après perquisition bi donc euh, juge bi daal di euh, ordonné mise à la disposition de la poste des sommes saisies donc dañ a delloo xaalis boobu ak consignation des chèques personne ak société nit ak société yi nga xamante ne mu ngi feeñ ci yooyu les chèques dañ leen convoqué ngir ñu rembourser prêt yooyu dans un délai de trois mois bu loolu weesoo rek bu ñu ko deful dañuy nar dem en prison et puis des mises en cause dañ leen par urbaine de Dakar après une plainte de Saliou Fedior bi nga xamante ni moom ñu ngi ko doon door a nommé euh, directeur général de poste euh, finance mais malheureusement il sera par la suite limogé par Abdoulaye euh, Bibi Baldé PCA de la poste pour insubordination manque de confiance ñu fàttali que l'affaire porte sur un détournement présumé d' milliard de nos francs c'est pas uniquement Fedior gis ont confronté à ils ont été mal de problèmes ki euh, depuis plus de deux décennies hein, chronique médiatique bi daal di toujours témoigner gestion à problème de la poste comme ni nga ko waxee soxna Fati donc plusieurs DG épinglés mm -hmm. par des corps de contrôle et ou fait l'objet de critiques publiques euh, sur euh, euh, Iba Joseph Bass bi nga xamante ne sous le régime de Abdoulaye après une superposition

milliards de francs CFA e dans les caisses de Poste Finance euh, n'est pas exempt de tout reproche. Alors, ah, dernière question, les solutions, piste de solution Piste de solution, on espère que du ñu yegg fii fi euh, mooy le pire et donc pour l'éviter, comment sauver la poste plusieurs pistes euh, s'offrent à, cette société, faire évaluer filiale bi nga xamante ne filiale financière le poste finance euh, vers la banque jox ko donc statut euh, banque et puis développer licence full MVNO pour en faire un opérateur mobile, teg euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, licence euh, ci ci li nga xamante ne moom mooy transfert d'argent xoolaat tamit lu jëm ci wàllu distribution door to door donc le porte à porte instauration tamit d'un centre d'incubation de start-up Soxna Fati. alors Chérif euh, poste quand même une maison à scandale malheureusement. un scandale te responsabilité président de la République mënoo ko cee génne soxna naata son faati mhm. parce que moom président moom mooy nommé ña fa nekk di direction générale ba rawatina directeur parce que mhm. wax ngeen fii depuis Wade on a noté des scandales mais moom responsabilité bi mu ñëwee kon on devait faire état des lieux def audit li ko fi jiitu laataa Siré Dia di ñëw ñi ñu def doxi doon yooyu ñu teg leen daan defuñ ko. Hmm. li ñu nemmeeku mooy en tout cas Siré Dia moom euh, li gën a yàq poste bokk na ci moom mi nga xamante ni kon su Macky Sall moo njëkk nekk le directeur te li indi problème yooyu mooy yow boo jëlee un directeur général comme son ministre na leen il faut gagner des wala ku gañewul dans localité ma dàq la moo waral kun fal tamit nii ngay def rek da jël alal yi nga xamante ni ko bokk. Mhm. nuureel ci une clientèle politique jël say ñooñ yóbbu leen fa. Mhm. on a on gis nga 2017 bi ñuy waajal élection yi lan moo fi amoon Sira Diame jël na fi ay euh, auto poste def ci logo benn bokk yaakaar. Mhm. on on a aussi des gens qui ont même organisé des meetings wala ay réunions ci nga xamante mooy si ba fitna amoon fi. Mhm. si vous rappelez sax am na ay communiqué yu ñu ci génn woon maanaam loo xamante ni ñëpp ko moom. Mhm. c'est une société nationale ñu jël waa APR di fa def ay ay meeting wala ay réunions. loolu quand moom mosuñ koo gis ci histoire du Sénégal. te dara fekku lañ donc ñi nga xamante kon. il faut faire des audits Euh, Bibi Baldé la même chose il continue à recruter alors kër gaa ngi daan. très bien donc la le seul responsable c'est le président de la République. Euh, merci Chérif 7 euh, heures jot na ba tegal fanweeri simili ak ñett ci banlieue bu Ndakaaru.